Mamadou Ibra Kane ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa ngi lay fay Elisabeth. nga jiite commité des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal ñu gën ko xamee ci CDEPS tey jii ñu waxtaanee benn këru taskatu xibaar bi nga xam ne jamono ji euh, nee nañu redressement fiscal euh, loolu lañ koy toppee euh, ñu bëggoon a xam sa xalaat justement ci mbir mi. waaw ñun ñun de la presse. Mhm. dañu ñaawlu lu entreprise de presse lu benn entreprise de presse am ay jafe-jafe ba mu nekk une menace euh, pour euh, emploi yi nga xam ne ñoo fa nekk parce que y a plus d'une centaine d'emplois euh, ci groupe des médias mhm. ñu ñaawlu le fait que investissement de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA mhm. mu ngi nekk en danger ñu ngi ñaawlu aussi dison fitna bi fitna baaxul si réew fitna baaxul dans le secteur de la presse euh, moo tax le mardi hmm. ñu mm. jël euh, ñu def démarche bu nga xam ne mooy seeti waa groupe média euh, des médias di leen di massawu euh, te ba pare ñu jël initiative def benn médiation entre le groupe des médias et le service des impôts hmm. hein, parce que euh, situation bi mënul nekk service des impôts dañ ko soxla parce que impôt bu amul Sénégal euh, Sénégal du am xaalis bu mu mun a investir dans tous les secteurs du développement économique et social. Mm-hmm. donc effectivement euh, contribuable yi muy entreprise yi muy citoyens yi dañu war a fay l'impôt mm-hmm. dégg nga léegi nag euh, l'impôt objectif am du rey entreprise du rey citoyen. Mm-hmm. dégg nga tax ñu ne il faut que ñu seeti. Euh, directeur général des impôts am nañu rendez-vous ak moom suba. Mhm. de nga euh, d'accord nañu ak groupe des médias pour euh, mu mun waxante ak service des impôts mu mun a respecter li koy impôt di laaj. Mhm. Ah, dans le même temps ñu yaakaar ne action bu njëkk bi nga xam ne. l'impôt war na ko def mhm. mooy la cessation des poursuites vis-à-vis des entreprises de presse parce que Euh, daaw euh, au mois de septembre deux mille vingt président de la république euh, organisé woon na benn conseil présidentiel sur la relance économique. Mhm. si conseil présidentiel boobu président Macky Sall daal di digge lépp luy fiscalité entreprise de presse mhm. ak entreprise du secteur du tourisme dina fexe que gàllankoor yëpp dañ. Mhm. nga Euh, si tubaab ñu ngi koy wooyee effacement de la dette fiscale mhm. ñaareel bi exonération de toutes les taxes et impôts mhm. euh, exonération de toutes les taxes et impôts maanaam kenn dootul fay l'impôt <clears throat> lu ko dalee premier octobre deux mille vingt ba trente et un décembre deux mille vingt et un mhm. loolu mu euh, si loi de finances deux mille vingt et un loolu moom ñëpp xam nañ ko service des impôts xam nañ ko contribuable xam nañ ko. Mhm. donc kenn munu leen laaj l'impôt li ko dalee donc premier septembre te euh, euh, premier octobre deux mille vingt ba trente et décembre deux mille vingt et un mhm. loi bi nga xam ne assemblée nationale moo ko euh, mhm. problème bi mu ngi si effacement fiscal effacement fiscal bi moo xamagul ba léegi un texte dégg nga amul texte bu nga xam ne daf ko consacré. président de la république moo ko diggee woon dégg nga ministre des des finances et du budget. Mhm. moom moo ko mettre en application. mais malheureusement amagul texte bu nga xam ne moo sanctionné loolu. Mhm. loolu moo waral actuellement entreprise yu bare du des médias rek entreprise de de yu bare am na ñu ay poursuites yi nga xam ne euh, impôt mu ngi dox ci entreprise yooyu donc loolu la ñu bëgg. mu am une cessation des poursuites. Mhm. dégg nga pour jàmm dellu si si euh, affaire des si affaire poursuite de vis-à-vis des entreprises de presse léegi nag pour ñu mën a euh, am euh, yeneen réflexion. Mhm. pour crise bi nga xam ne crise économique. bi si secteur Euh, entreprise de presse yi. Mhm. crise sociale bu am ci secteur entreprise de presse yi. Mhm. ñu mun ci am euh, ay saafara dégg nga parce que euh, presse dafa nekk secteur bu névralgique. Mhm. dans une démocratie. donc presse waruñu ko seetaan mu suux. ndax bu suuxee Sénégal mooy suux démocratie Sénégal te mooy suux stabilité politique et sociale bu Sénégal mooy suux donc loolu moo tax ñu jël. Euh, initiative ne dañuy def médiation. Mhm. Euh, pour kaaw euh, des médias mais de manière générale kaaw de la presse yëpp dégg nga entreprise de presse yëpp moo tax ëllëg si suba incha allah si dix heures am nañu rencontre ak le directeur général des impôts et domaines. bu ñu ko tamit dañu fas yéene rencontrer le ministre des finances et du budget ndax am na yenn décision yi nga xam ne. Euh, le DGID dina ko jël dégg mais am na yeneen décision yi nga xam ne euh, le ministre moom moo ko mën a jël le ministre des finances et du budget euh, dañu bëgg daal mhm. Sénégal ñu préserver suñu presse parce que suñu presse bi c'est une presse républicaine même bu fekkee ni seetlu nañu temps yi mhm. am na ay problème de corruption yu bari yi nga xam ne am na le dans le secteur de la presse mhm. mais suñu presse bi moom moo ñu valoir Euh, alternance politique en deux mille et en deux 2012 euh, suñu presse bi moo ñu moo ñu valoir euh, la la lutte hein, contre les pandémies suñu presse bi moom moo ñu mën a valoir ñu continuer ci stabilité politique sociale bu nga xam ne Sénégal nekk na si. d'accord euh, monsieur Kane ñenn ñi nee nañu euh, politique moo lalu ci mbir mi am ca <coughs> d ñu bëggoon a xam comme yow comité nga yor euh, bu patronat bi ndax ñoom waa D-Média rek ñoom ñoo am li ni mel wala am na yeneen entreprise de presse yi nga xam ne fisc bi mu ngi seen kaw. waaw Sénégal la ñu am nañu constitution. Mhm. bu nga xam ne dafa garantir tout citoyen mu exercer Euh, tous ces droits civiques et politiques. Mhm. maanaam citoyen bu nekk mun na ne kii laa far wala fale laa far wala sax faruma kenn dégg nga euh, donc am na ay patron de presse yi xam ne. Mhm. ñenn ñi dañu jege dañu jege. Euh, pouvoir moom nguur gi. Mhm. ñeneen ñi ci opposition la ñu nekk. ñenn ñi féetewuñu fenn dégg bo boo jëlee Youssou Ndour Youssou Ndour ministre. conseiller du président Macky Sall bo nga mhm. euh, le soleil euh, c'est un euh, c'est un journal pro gouvernemental mhm. dégg nga euh, boo des médias euh, te Bougane Gueye Dany moo ko mhm. Bougane Gueye ci boppam dégg nga moom parti politique gëm sa bopp dégg nga jamono Sidi Lamine Niass da daan wax ne c'est la voix des sans voix. Mm-hmm. dégg nga donc euh, si presse bi euh, propriétaires yi dégg ñu jiite euh, te média yooyu dégg nga mun nañu am ay position politique ñu daal di koy exprimer problème. Mm-hmm. dégg problème bi mooy que journaliste yi technicien des médias yi ñoom ñoo warul feeñal ci seen liggéey ne dañu féete boor parce que journaliste nekkalu fi président de la république. journaliste nekkalu fi député wala ministre journaliste nekkalu fi parti politique journaliste nekkalu fi lobby journaliste citoyen bi dafa nekkal. kon patron bi am na droit politique mais journaliste ba jigéen ci organe bi war naa nëbb li nga xam ne mooy appartenance am. oui oui non du nëbb sax dégg nga parce que dafa am droit civique et politique dégg nga mhm. mais waru ko feeñal ci biir liggéeyam. journaliste ak politique dafa méngoowul mënuma nekk journaliste bo pare di def politique dégg nga mhm. boobu day fekk en réalité nekkatuma un journaliste mais dama mbubbu politique am na ñenn ñi nga xam ne ñoom euh, d'accord nañu ne léegi même bu fekkoon ne ay journalistes yu mag la ñëwoon dans le passé mhm. euh, tey ay hommes politiques la ñu suñu confrère ancien confrère boog euh, Abdoulatif Coulibaly moom mhm. daf koy wax ne moom dafa simmi euh, sa toog de journaliste uh-huh. léegi mu nekk un politicien dégg donc journaliste bu ñu buggee réew mi am jàmm uh-huh. dégg nga journaliste du def politique journaliste euh, suñu constitution may na ko droit pour euh, kenn bañ ko forcer uh-huh. mu adopter ay position yi nga xam ne méngoowul avec son éthique professionnelle code de la presse de même Euh, convention internationale yi ak la charte du journaliste mm-hmm. dégg nga euh, mayu ñu journaliste muy exprimer ay position politique waaw léegi nag malheureusement comme euh, suñu jamono bi dafa jaxasoo mm-hmm. comme lu bii dañu am doole te ñoom ñoo am xaalis dégg nga ñoom ñooy recruter ay journalistes ñooñu di waxal ay lobby yooyu muy lobby politique muy lobby économique muy lobby religieux dégg nga loolu nag danger la pour la démocratie au Sénégal parce que journaliste dafa war a def liggéeyam euh, conformément à l'éthique professionnelle euh, pour mu mun a remplir correctement sa mission de service public mais non pas que Samba Boy bu jóg jox xaalis rek mu daal di féete si booru kooku donc loolu c'est important euh, bu ñuy wax liberté de presse ñu xam ne liberté de presse du état rek moo ko mën a mhm. mais am na ay lobby aussi yi nga xam ne mën nañ ko menacer. donc loolu il faut ñu xeex si fii Sénégal et malheureusement avec la crise euh, économique et sociale bu nga xam ne moo am si biir média yi am na ay euh, investisseur yu bare ñoom dañuy ñëw di investir dans les médias pour mun a changer opinion publique bi en leur faveur dégg nga loolu nag danger la mais ñun journalistes ñun techniciens des médias yi ñun ñoo war a xam ne waruñu jaay notre am au diable dégg nga parce que ñun citoyen bi nañ fi nekkal. d'accord euh, ndax li xew des médias dafa porter benn coup euh, lii di liberté de la presse. waaw xam nga euh, ñu ngi am tiitange. Hmm. kaawu des médias mu porté atteinte à l'image de la démocratie au Sénégal. parce que euh, comme ni ma la ko waxe président de République am na ñaari décision yu mu jël. décision yooyu buñ leen appliqué woon kon tey kenn du wax affaire euh, poursuite euh, du fisc contre des médias mm-hmm. mais nee naa la du des médias rek moo am problème boobu dégg nga entreprise de presse yu bare am nañ ko euh, donc ñun démarche bi ñu nar a def mooy justement euh, décision yi nga xam ne président de la république jël na ko mm-hmm. pour ñu mun ko appliquer pour que euh, la, la, la, fiscalité ne soit pas une charge pour les entreprises de presse. Euh, jamono jamono euh, xam nga ndegem yaa ngi koy fàttali ou pas. Mm-hmm. élection 2017. Mm-hmm. dégg nga man maa woote woon si yàlla Sidi Lamine Niass. Mm-hmm. ma ne ko directeur ARTP mu ngi ñëw bëgg a tëj. Walfadjri Walf TV. Mm-hmm. dégg nga euh, avertissement boobu ma ko jox information boobu ma ko jox. Mm-hmm. loolu moo permettre euh, ñu bañ a tëj Walf mm-hmm. loolu dama ko def en tant que président du patronat parce que euh, bépp entreprise de presse. bépp citoyen sénégalais mun na am position politique bu ko neex pour que Sénégal mu continuer am la. une réalité politique. Mm-hmm. Euh, bu dul woon presse kon Abdoulaye Wade du musa falu président de la République du Sénégal bu dul woon presse président Macky Sall daaw euh, mu euh, risqué de ne pas être élu le président la République du Sénégal dégg mm-hmm. ñun presse bi citoyen bi lañ ci nekkal dañuy nettali lu xew ah et kenn waruñu. indi ay difficulté ci suñu liggéey boobu euh, moo tax euh, ñuy dox jàmm suba ñu seeti euh, le directeur général des impôts et domaines muy muy kilifa bu nga xam ne moom moo chef service impôt yu Sénégal yëpp dégg nga pour ñu mun a am la cessation des poursuites bu ñu fa jogee dem seeti le ministre des finances et du budget Euh, pour que la situation euh, de la presse ñu mun ko régler au niveau fiscal. en quelques mots rek ndax waxtu wi euh, xoj nañu tey assise de la presse assise sur la presse donc yi nga xam ne assise des médias lañ ko duppee au Sénégal ñu fas yéene amal le 15 novembre tey ji seen xalaat donte ne ngeen associé wu ñu leen ci. waaw bu ñuy wooyee coordination des associations de presse siglam nekk CAP euh, CAP moo doon réunir euh, l'ensemble des acteurs des médias mhm. muy mm muy patronat muy convention des jeunes reporters muy CORED bu nga xam ne mooy suñu tribunal dégg nga muy yeneen association yi par secteur comme les les photographes les techniciens les caméramans et cetera et cetera. Mm-hmm. Euh, cap boobu moom moo permettre ñu adopter euh, le code de la presse dégg nga jamono boobu dañu defoon marche en 2017 dégg nga ba ñu def pression sur sur l'État pour que outil indispensable boobu buy code de la presse ñu mën ko adopter. Mm-hmm. donc ñu xam ne euh, rek bu jógee du saafara problème presse syndicat rek. bu jógee du saafara euh, problème de la presse. Mm-hmm. Euh, euh, syndicat xaw ma association sectorielle dégg nga bu jógee du saafara des problème de la presse ñu ne il faut ñu dajaloo si suñu rencontre yi amoon na benn initiative bu nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko war a mm-hmm. pour que ñu organiser les assises de la presse wala les états généraux de la presse. donc euh, assises yu mel noonu muy assise de la presse wala état généraux de la presse. Mhm. importe peu non bu ñu ko jox dégg il faut que euh, toutes les composantes de la presse ñu mun si bokk te euh, si biir composante de la presse yi am na euh, benn composante bi nga xam ne dafa am doole dégg nga parce que moom mooy investir euh, ay milliards moom mooy créer ay entreprises moom mooy créer ay emplois donc tey euh, pour mu am une réflexion sur la presse il faut que ñu boole ci le patronat dégg nga te patronat mun ñu toog rek ne dañ koy invité waaw déedéet moom daf si war a bokk euh, parce que euh, am na réflexion sur le code de la presse sur la législation de la presse au Sénégal am na réflexion sur la fiscalité de la presse au Sénégal am na réflexion sur le financement de la presse au Sénégal et aussi euh, am na yenn problème yi nga xam ne sax euh, d'un point de vue social moo concerne les travailleurs mooy les cotisations sociales foofu am nañ ay jafe-jafe yu bare nga xam ne sans le patronat mhm. vraiment duñ ko mën a réglé wala sax benn problème bu nga xam ne mooy le logement des travailleurs du secteur des médias mhm. loolu patronat Euh, mënuñ si dindi loxo. Euh, monsieur Mamadou Ibra Kane ñu lay jaajëfal euh, bu baax a baax. maa ngi lay fay Elisabeth.